jàllale waaye yow loolu. xam ne combat bi combat bi du coole du coole ñun yàgg na bëre combat bu ne bii du combat waa Pikine dañoo bëri wax. Ama Baldé dama ko dégg mu ne da leen di sànni. ñu métti ñu quoi ñu métti loolu laa dégg moo ko ne Ama Baldé Ama Baldé dafa ne da leen di sànni. ah ci daal li war poids dama mel ni yéen amuleen confiance. ah loolu la waaw waaw ah yënguwul yënguwul yënguwul. ah bàyyi ba si kanam bàyyi ba si kanam. bàyyi ba si kanam bàyyi ba si kanam. waaw dama bëgg da ngeen di tiit man xam nga moom. tiit non non tiit yi de. waaw yàlla amul ragal. amul ragal. gars yi gars yi. ñu leen di jaar taw bi la. daa mel ni a ngi ci affaire yi daal. Ah. non laamu ji jeex na parce que lu waay doon jaalee mu lamb. mais seen kanam yi eh, a ngi seen fii mooy interdit ndeysaan ci gàlle Modou Lo ndeysaan képp la képp la amul doole. gaa yaa ngi noonu. non bokkul laa ma xalaat supporter Modou Lo yaa ngi noonu. problème damay dégg magu lamb yi naan Modou Lo ba mu commencé bëre bu nekk am combat bu mel nii non non combat moog Balla Gaye moo gën a moo a lan lañ mën a xaar lan lañ mën a xaar ci Modou Lo waaw mooy fulla ak fayda rek parce que dégg nga ko ëppat presse mu ne moom lamb ji lambam la quoi du lamb supporter xam nga kon moom lamb ji am na fu mu ko teg di ko ñaanal ndam quoi si barke sëñ Touba billaahi aywa incha allah rabi jaajëf ñu def beneen maa ngi lay ziar gars yi. delloo ngi lay ci de. ngi ci wàccaay bu baax. mais sedd bi sedd bi ngeen sedd nii la woon. waa parcelle non non nit ñi génnuñu ba pare nit ñi génnuñu. lan la non affaire bi mooy loolu. tiitu leen dafa mel ni. non non luñ li ma gis nii moom xaw ma ko woon. non heure boo fi bàyyi Ama Baldé barki Rasulullah. mais Ama Baldé yéen gis ngeen ko gis ngeen ko. gis. Ama Baldé démb dama ko dégg ci làmmiñam mu ne da leen di sëq sànni sëq sànni. non non wax la rek. bàyyil ba ngoon incha allah. ah ngeen li ko non pare ah, ma kii jëlal ma kii waay man lay fay. jàmm rek gaañ. waay gis nga ah. waay maa si bëgg Modou Lo. man de gaañ. saa bëgg naa la waaw ah, delloo bëgg naa la. waaye xarañ rek wax nan nga bëgg mu demee mu daan wala mu def rek da def naag da def naag yàlla da def naag da xam nga pare ngeen sa lépp da pare à domicile la in waay moo dañuy xaar ba am doole nga demee sa waaye ba nga demee sa jëngal la ñuy def affaire bi xarañ la mu daan ah, loolu ñu wax loolu moo di daane amaat da nga bëgg mu wala da nga bëgg mu daan waaye bi ñu tamit loolu la mu daan inshallah du kanam yàlla que ne Modou moo daan moo mën a amaat. waaye dégg ma de. loolu biti la fanaan loolu la fanaan loolu biti la fanaan. incha allah mais gars yi ne nañ amaye bi mooy tracé Modou. ñooñu dañoo baax di wax rek. ah dañoo baax rek. dañoo baax di wax. barki yàlla. seen confiance. ah ngeen am ci am parce que waaye gëm ko moo tax ñu tey yow ñu dara leer wala kan na bi si garab lan nga bëgg ci melu Ama Baldé lan nga ci nam xanaa ñu laa yërëm ñu def borom la sëy rafet yi amaate watuloo def parce que damaa xam ne léegi dañu sa nekk ñu koy jooy ah. bilaay ndax loolu ñu raas seen nay ma di tàggu li di jooy jooy mel ma ñu laa yërëm jaajëf barke Sëñ Fallu tiituñu yoo xam ne Pathé ragal dëkku fi. ah mais Awa Baldé ngeen di. Ama am fit te wóolu. salaamaaleykum. dañ ko wóolu barke sëñ Fall. rek la ñuy andi. waaw muurloo rek la ñuy. muurloo rek.

kon combat bi Ama Baldé Ama Baldé doomu Fallaye Baldé magu rakku Kumba Baldé yow loo bax ñun ñu ko sa boobu noonu moo dalay daal ma pare xolam koŋ la mais ñun nag yow ñun ngay waxal de jëlal lii ñun ngay waxal ñun lan laa mën a xaar ci combat bi lan laa mën a xaar ci combat bi. waaw combat bi de combat bi moom saa yi la laamu ji isaaf di leen laaj kooku di leen sàmp di leen mais Modou bëri nañ. ah moom la bëri bëri nag ñi nga xamante ne gis gën nañ gis Ama Baldé gën ko ëpp coow gën ko ñëwee sañ-sañ. Ama Baldé nag peut-être nag ay waa kilo ñoo ko yenn waa delloo nag mais moom su ma ko. xeex ak mu da ngay ñaan. ay jaar non man man man du ma subaatee du ma subaatee. Modou rek waaw waaw Modou rek ñu topp Modou rek la ñu topp waaw waa Parcelles laa wax ñun Modou rek la topp topp ñu kenn ama xoolal boo ne alxuraan jaaxalu ñu dañu koy def li ñuy def ñu bind len mënu ko jot ñu topp xamatuñu xas xale yi fan la ñu xamee ngeer ndax man ñi jàngatu topp njeer baax na cim saxat moom xasum doora cey lii waa Pérési Pérési Pérési tey jàll naa di nga de waaw tey jii laa waa Pérési nu mu demee nii tey waajal bés bu rëy rek bés rek def ko ci jàpp daan ñu bis waaye ñëpp ñëpp a jóg Parcelles Assainies ñëpp a jóg Modou Lo monde entier la international. waaw gis nga loolu. waaw ndam rek ndam rek kontaan rek bëggee jaajëf waay. Thank you.